mbokk yaa ngi bàyyi xel seen bu am solo bii di kenn bëggul TV mii dox lépp loo xam ni dafay yëngu ci actualité wala da nga bëgg a xam lépp loo xam ni moom la kenn bëggul di liggéey bépp œuvre kenn bëggul mu Seex Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di nga ko mën a fekk ci seen bii di kenn bëggul TV naka noonu yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a xam lépp loo xam ne dafay yee doomu aadama di dox ci actualité di nga ko mën a fekk ci seen bii di kenn Bugul TV boo bañee benn vidéo rëcc la ci Ken Bugul TV bësal kolos notification bi nga abonné ndax bépp vidéo bu ñu fi def rek nga mën koo jot Ken Bugul TV miy dox ci bëgg-bëggu askan bi